waa merci ci seen teewaay d'abord euh, di nuyu Sénégal yëpp di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni euh, ñu ngi seetaan lii kàddu mbégte na nag la kàddu mbégte ak fierte yaakaar naa ne boo demee boo amee doom ba mu màgg di liggéey sant yàlla la. Forever Young nag man li may wax euh, sans limite la amul fu mu mën a yem ndax tuur bi rek dafa wuy boppam Forever Young. maanaam euh, li nga xamante ni lépp lu rafet la lépp lu dul màgget lépp li nga xam ne da ngay bees rek euh, donc euh, loolu moom mooy Forever Young saa yoo ñëwee rek di nga ci gis li nga xamante ni plaisir la boneur la loo xamante ni boo ko utiliser wala boo ko solee yaakaar naa ne muy diw lépp muy produit muy yére muy lépp lu mu mënti doon rek. boo ñëwee Forever Young di nga ci gis euh, sa bopp. bu ñu ko tekkee ci olof Forever Young en français toujours jeune. mooy ba léegi da ngay gàddu. waaw da ngay waaw da ngay da da ngay da doo màgget maanaam. ndax euh, xam nga liñ naan euh, à chaque fois dañ may laaj lu tax doo màgget du moo mag gaa maa ngi sant yàlla bu baax mais màgget ci bopp la. Euh, et puis bëgg sa bopp tamit euh, di toppatoo sa yaram di toppatoo sa bopp yaakaar naa ne loolu doo mës a màgget di dem nag fi nga xamante ni yu baax yi fa la nekk vrai bi euh, et puis euh, voilà bëgg sa bopp doo màgget forever young moom mooy daal vraiment dangay des jeune rek voilà. ku yor a ku yorul. non non non non euh, liggéey bi moom ñëpp ñëpp mën nañ ci gis seen bopp ku yor ak ku yorul loo yor rek boo ñëwee mën nga ci gis sa bopp. Mhm. non non xam nga ñun dañoo juddu fekk fi marché. juddu fekk fi ñëpp di euh, jaay donc yaakaar naa ne euh, loolu fi lañ koy bàyyi fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi ndax liñ naan àll bi na torop waaye ku nekk di nga béy sa waar te du tere mu des fi euh, marché bi yaatu na ñi fiy jaay mèche ñu ngi jaay mèche ñiy jaay tey ñu ngi jaay tey ñiy jaay jën ñu ngi jaay jën te bëri na ñiy jaay même chose donc yaakaar naa ne tey Zeyna bu jugee jàng na ba pare am ay diplôme am tekk mais dafa ma ne maman lii laa bëgg a def su ma paree après dinaa dellu si waat peut euh, ci ci ci li nga xam ne moom laa jàng muy avocate donc euh, dama koy bàyyi mu def plaisir boppam liggéey ndax liggéey bu nekk rek man pour man euh, baax na liggéey bu ne loo am ak loo am feeling def ko rek te muy lu rafet lu baax mën nga ko def donc tey dañ ko ci poussé dañ ko ci encouragé mu liggéey ndax dafa juddu fekk yaayam di liggéey papaam di liggéey donc bu ci jaaree du ma ne guleet dañ koy encourager rek. est moom moo financé boppam wala yaa ji dafa am lu mu ci dugal ci ah, am génn ci poosam jox munu cee ñàkk gaa waaye moom góorgóorlu na ba nga xamante ni ba mu tàmbalee euh, coow li bëri lool ba mu tàmbalee am na lu mu denc loo xam ne man dama ñëw rek jàpp ci papaam jàpp ci euh, donc euh, munul ñàkk mais moom góorgóorlu na ba ba ba teg budget boppam. waaw samay doom lañ nag samay xarit lañu. ndax yaakaar naa ne doom moom doone dama ko jur rek fee ngay toog li ma lay wax ngay def donc dañu toll jamono boo xamante ni sa doom dafa war a nekk sa xarit nekk sa complice euh, ñuy samay xarit nag ñu màggandoo parce que bi ma nekkee xale dama leen teel a am macha allah ñu màggandoo ak man tey euh, bëgg naa li may liggéey yëpp mu koy gis muy xam euh, métier bi tey lan la parce que bu ñu nee musique rek moom mënu ci génn ndax li ma koy wax ne ko yow da ngaa juddu rek siiw macha allah Euh, bi nga juddoo la ñëpp xam ne doomu diw ak diw nga donc loolu mënul ñàkk te tey yaayam di nekk def musique euh, rakkam aussi bëgg musique donc yoon la mu may gunge di xam milieu bi naka la mel euh, fu may dem nag des fois bu amee jot gunge ma sama xarit la waaw sama xarit la sama doom la sama xarit la. waaw xam nga dañ ne forever young xale yeeg mag ñi rester jeune kenn du màgget. donc ñu tàmbalee ko ci suuf nag pour xale yi yéeg pour mag ñi nee naa ko man euh, bugguma forever yang yem fii rek dama bëgg nga ubbi yu gën a yaatu ubbi ko ci dëkk yëpp euh, ndax li ngay def euh, bëgg nga ko te day créer day créer day xool li nga xamante ni vraiment bu koy génnee dina gën a taaruloo nit ñi mu koy def ma ne ko kon fonce demal. <laughs> waaw maa ngi nag euh, souhaiter euh, Sénégal yëpp une bonne euh, di ñaan at bi ñuy génn vraiment at bi ñuy dugg yàlla na dàq at yëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla na jàmm sax Sénégal yàlla na fi yàgg di ñaanal kilifa diine kilifa aada yi ñu yokk ñaan. Sénégal gën a gën a neex saawaan baawaan ñëpp am jàmm. sant yàlla rek sant yàlla bu baax a baax a baax. ndax dara dàqul li nga toog bañ ne la kaay sa doom day inauguré lu day ni muy sama doom nag di sama xarit di sama turandoo donc tey man bu ma fi teewee war naa fi teew li ma war rek laa def te yaayam it aussi yàqu ci dara Zeyna ku ko xam xam ne bëgg lu baax rek la def ndax lu baax rek la xam ñu ngi koy ñaanal nag boutique yi bii mu ubbi yàlla na doon ay boutique ci bépp fépp xam ne rek Sénégal mu law fa ba law bitim réew. xanaa fierté c'est une fierté dama kontaan dama bëgg parce que kuy dund rek ñaan nga yàlla am doom mu xëy am jom ne damay teg lii pour demal sam bopp ba ñëwee ci yaay wala ba ñëwee ci baay dafa am solo te lii rek la lii rek la war a mel bu melul ni jaaxal ay mbokkam nii rek la war merci jërëjëf ah kontaan rek ak fier parce que bon ñun aussi ah bu dee dañ ñu ñoom dañ ñu seen micro yu bëri na mais naa jéem <laughs> waaw donc dañu euh, ni waaw bu nekk bëgg nga am doom ba mu màgg am ay ambition di ko di ko dawal jël initiative boppam jël yoonu boppam c'est important donc ma ko ci encouragé ma ñëw fii ci présence bi vraiment je suis très fier d'elle et je pense que peut-être c'est le début de quelque chose je pense que ñun tracé nañu yoon am jom liggéey que ngay góor ngay jigéen nga def si sa fulla ak sa fayda yàlla mottali ko donc vraiment su une fierté ma gis que ni moom ci boppam initiative am la xelam la peut-être ñun dañu nekk ci ginnaaw di pousse rek mais vraiment je suis je suis mais mais euh, pour man jàng. c'est important maintenant li nga bëgg a def li la yàlla euh, sóoraaleel euh, réserveel yow nga def ko je pense que euh, dem ba si biir xam que ni jigéen aussi tout ce qui touche aux euh, aux femmes ak aux enfants parce que gis naa ni aussi bàyyi na xel affaire xale yi c'est c'est bien et je pense que lii yàqul la le àddina bi aussi je pense que il faut nit yi di di diversifier seen ay activités donc lii moom vraiment c'est c'est quelque chose de bien mais pour man lii teeñ bi rek yan bi nag moom moo ko ciy def mooy que dans dix ans bu ma koy tàcc bu ma ko waree tàccu dans dix an damay gis que ni ubbi na ci lu mat vingt wala mu ngi dem ci Afrique wala ci monde bi bu boobaa laay xam ni fi mu war a egg egg na fa mais je pense que normalement bu suivre ay tànku parents am ak famille am war na mën a quand góor góorgóorlu. amee mais conseil yi pour dire vrai bëriwul parce que moom laa lay wax ni am na xale yi aussi am na âge boo xam ne bu ñu fa tolloo jóg pour def dara da leen di encourager am nga parce que bu doon lu safaan la peut dama ko naan bul ko def mais soo sa doom mu jàng. ba pare ñëw ne dafay dafay def yëfu boppam pour essayer génn si parce que jamono dafa naqari da nga koy encourager mais vraiment su ma gisee loo xam ne peut-être c'est sur des idées wala yooyu mu laaj ma ne ma papa lii laa war a def la la mais franchement projet bi yëpp moom moo ko moom moo ko gàddul boppam parce que je pense que elle a été bien forme tukki na xam na li xew ci à moo tax bu ñëwee fii mun a dérouler. Oh, I love you, papa. Allez. Allez, merci. Allez.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 fi sës woo mu ne ma ndéygéey kaa bi lan ma ne ko kii daa feebar ordonnance la war a jël ko lépp mu jox ma xaalis bi ñaar fukki ñetti téye barke Cheikhul Khadim yàlla sa jàmm yàlla barke yéen ak yow ma ñemee yee deux heures du matin ma mag sama jëkkër ñu tëdd nga ne ma jógal ma jóg foo ma woo ma wuy si la sama waa kenn nag ca kanam li neexul DK